bokk yi xutbab bi ñu ngi ko jëmee ci mooy yàlla wattandiku mooy yàlla ndax mbugal yi nga xam ne mooy yàlla moo koy waral ab jaam mbugal yi yenn yi tàmbalee fii yenn yi nekk ëllëg bokk jullit nan ragal bu baax mbugalu bi yàlla ndax mbugal bu sunu borom lu metti la bu nu waru nag ci leewetuk suñu boroom gii nga xam ne dangay def danga koy tooñ mu bàyyi la waaye naan xam ne yu ma xal yàlla dafa lay yéexa rek waaye nag bàyyiwu la mu neen loo def bu la ko danaa la na ko fay lu tol noona ngeen xam ne bàkkaar bu ngeen def rek sunu borom dana leen fay loola moo xam day lu gaaw wala lu yéex waaye boo ko gisu boo gisee ku nekk ci mooy yàlla mano fu mel ne yàlla dik ko dara da nga bul yaakaar ne mooy ko da koo jikk xamal la bis mi ci kanam dana ñëw yàlla wax na ci axwaan ne lu leen jot ci musiba rek xam leen ni yéen ko yéen ko liggéey kon nag ñu xam ne lii xew ci àdduna si li ci ëpp ci doomu aadama yi ñoo ko ñoo ko waral waxaat ci axwaan ne ak yàqu feeñ na ci as ci suuf si ak ci géej gi ak ci jéeri ji te lépp nag loxoy nit ñi génnu ca kon nag mu ne looloo tax nag dana leen masal ci suñ yàqu googu ñu def dana ñu masal tuuti ci ak mbugal ci àdduna si ndax bëgg dellu si kon yéen ñi suñu borom teg ci ay fitna ak natt day bëgguñu ñu tuub delluwaat ci suñu borom te ku ne xam na ne lii xew ci àdduna ay loxo nit génnu ci ñoo xam ne fépp saa saa boo xamee ne nit ñi ñu ngi def ay bàkkaar rek fu foowa sunu borom nu teg ay nattu ak ci mbugal ngir lan li ñuy seexum bàyyi dal la si amiloo ndax lu ñaaw lu bon li nii def faaw su suñu borom masal ñu ci tuuti nag waaye tuuti rek la ñu ci masal ndax bu nu li ñuy def ci bakkaar bu nu ko tegul fii ci àdduna kon ñëpp jeex ñëpp faatu ndax bari na aw xeet yu fi nekkoon da def ay bàkkaar suñu borom alal leen ban jax takk bari na ay état yu fi nekkoon suñu borom alal leen ban jax takk nooxu ñam ñam fa nekkaloon xeet bu mu àndaloon ñëpp sunu borom leen alak ba mu des moom ak ñam àndaloon ca gaal ga firxaw na nguuram nga la muy réy réy danoo xëy xëy sunu borom alak mboolem nguur ga mu tas tas ak ngóot moom itam mbooloom xaadi moom ñu xam ñu amoon adduna su neex la leen suñu borom daa xeexi alal ban jax takk kon nag ñun lii ñuy lim ñuy def dama masal tuur ci suñu bakkaar yi yi xam ne moom lañuy def ci àdduna si yàlla wax na ci ne buggee yàlla du soppi xéewal indi nit mukk ndare boog ñoo soppi ko saa bu nit nekkee ci jàmm ak xéewal ba yàgg ñu fàtte suñu borom nag suñu borom day teg ay natt ban delluwaat ci borom kon nag saa bu jamono soppoo rek na xam ne ñun ñoo soppiku waaye yàlla moom soppiku fa mu newoon la nekk mooy yàlla nag li muy indi dafa bari lii xew ci àdduna si ci suuf su yëngu suuf yi yëngu yi di rey ay mbooloo ak yii di takk ay infijaaraat explosion yi nga xam ne day am ci àdduna si ay suñuy takk gas bu takk nangam lu rey ci mbooloo mu bari xare yi nga xamne ne day dëkk jëkk dekk ak sang xex xex metti mboro mu bari de ca yak dekk bu bam yak yàqu ñamon ña seen i jëkkër faatu jabar seen jabar faatu def nit ñi ay jërim yoy yep ay natt la yo xamne yalla mako tekk nit ñi lak yu bari yi nga xamne jamono yu ne yaa deg fa na ngay lak bu lakkee yak keur ya lak marchandise ma yak alal yu bari bari yoy yep ci natt yi suñu borom la accident yu bari yi ngay deg ci auto yi mbolo di ci faatu ak bato ak avion yi daanu yooyu yëpp nañ xam ne ci bàkkaar yu bari yi moo tax sunu borom du ñu teg nattu yooyu niki noonu feebar yu bari yi nga xam ne mooy am ci àdduna bal jaaxal ñëpp loolu ci bàkkaar yu bari yi nga xam ne moo war moo am ci àdduna si moo tax sunu borom duñu ko teg ba bokk na ci feebar bi nga xam ne moo fi nekk ci def bëgg a yàgg ca mel na tëna expert yi nga xam ne ñoo xam santé sax ba fi ne turweegun dëgg dëgg feebar bi ak dëgg dëgg lu koy faj loolu ci mooy yàlla gu bari yi nga xam ne moo nekk ci àdduna si moo tax suñu boroom dina ko teg ndax yàlla wax na ne feebar boo gis wàcce naa garabam waaye nag bala mu bala bala bala mënoo wan garab gi ne danu dañu bàyyi ban sonn ba sonn ci ku ne xam ne léegi yéefar yi sonn nan waaye ak àdduna sépp nag li nga xam ne moo xew ci àdduna si nag ci ay catastrophe ak i jafe-jafe yi yëpp ab xuppee la goo xam ne suñu borom moo ko def ngir xuppe ci jullit yi ngir bëgg ñu delluwaat ci seen borom wéetalaat seen borom delluwaat ci jikku yu rafet yi nga xam ne moom lan suñu borom digal ndax mbugal suñu borom kat bu ko dee wàcce moom du koy yamale ci te ñayi mooy capp day boole ñëpp moo tax lii mooy yàlla gu bari gi ci àdduna si waaye teewul jullit yi nag di leen seen wàllu ndax ñoom it dañ ci am walla kon nag li ñu war a jàng lii mooy ñu ci ci yi nga xam ne mooy am ci àdduna ci jafe-jafe jafe dañ cee war a jàngate ne kàttanu suñu borom suñu borom rek moo am ndax borom xam yi li ñuy am xam-xam li xariñ xariñ xariñ idil na leen fi loo xam ne booba tey mënuñoo trouvé lu doon mënuñoo xam lu koy faj loolu nag kàttanu suñu borom lañ ci war a jàngate ak nag ragal suñu borom itam xam ci mbugalam ndax moom itam ba ak léegi lépp ci àdduna taxaw na tam indi ko def ko ci benn virus bu tuuti rek ba mu taxaw àdduna kon nag loolu am njàngal la ci war kon nag nan gën a ragal ak yàlla ci tuubaat suñu borom te delloowaat mbir ci suñu borom ndax yonent bi sallallahu sa wasallam wax na ne saa ay ñaawte feeñee ci aw nit ba nëbbatuñ ko lu waaye neex def ci mbedd mi suñu borom dañ leen nattoo ay mbas ak i métti yoo xam ne ña leen jiitu woon sax mosuñ ko am loolu kaw na xam na ne am na ndax àdduna soo xam ne si léegi lépp mi ngi tëdd ci ay warante ak wax ju bon ak jëf bon ak iñaanante ak mbañante ak ŋàññante ak réer ak topp seytaane ak topp sa bànneex ak xuloo ak i pox ak ngistal ak njaaloo adduna suñu doxee noonu faaw suñu borom du ñu indil nattu yi ci wax na ne ne bu bu isa saxara sina war riba fii xar bu njaaloo bu ñu ko nëbbatut riba nëbbatuñ ko ci ab dëkk nan xam ne mbugalu yàlla dana wàcc ci ñoom te ku xam na ne léegi njaaloo ak riba wax dëgg yàlla adduna si tëggatuñ ko bàkkaar sax kon nag ñu xam ne fii ñu ngi dund ci dund yu mel nii ak caay-caay naan sanga dorog rambaaj toxal wax ju baax bon di ko yóbbu ci nit ñi ak homosexuel yi xew xew góor jigéen gi carte yi nga xam ne moom la addunay tukkee moom la addunay doxee munta ànd ak nag ñi am suñu jàmm am am suñu feex faw suñu borom dañu teg ay nattu Sëriñ Tuubaa wax na ne ay caay ay caay-caay li muy waral day waral xol bu wow inna rasaila mina sunubi moorisatun xasaabatal xulubi ak caay-caay ku koy def da ngay sa bopp day xol sa xol day wow day gën a dëgër bopp di gën a ñeme li ngay def te wax na tam boo ko dee def lu bari li fi mu lay jëme mooy rek texee di la yóbbu ak ñu di la ak xañ la wërsëg ak aku noono rek la caay-caay indi te koo koy defee tam faatu gaaw a faatu dana la dikkal lu gudd fan mukk moo tax mu ne képp koo gis koo xam ne gis nga muy def ak caay-caay ba noppi nag na xam ne fu faw faaw sunu borom wàcc ci moom ak mbugal ci àdduna si balaa génn àdduna bu fekkee yaa ngi def ak caay nag ba noppi mel ni ko amul xéewal na nga ne sunu borom da koy jaay kepp ak di ko nax waaye nag mbugal gaa ngi ñëw kon nag nan góorgóor bu baax ci delloowaat sunu bopp ten xam ne te tuub tuubaat sunu borom ndax yàlla moom nee na. bàkkaar yépp lay jégalu ku ko tuub ku ko ku ko jégul tan koy ñaan nag ñu xam ne lii lii xew ci àdduna ñaar yooyu mënu ciy génne tuubaat dellu suñu boroom tey ñaan yàlla mu génnuñ ci ñaar yi mooy génne ci yàlla wax na ne ci hadiisu qudsi yi ab doomu aadama fii mi ngi may ñaan te di may yaakaar bañ bañee bañee naagu dangay ngay ñaan suñu borom yaakaar ko nee na boo ko defee daa la jéggal say bakkaar te du ma faale lu mu mën di toll faariwuma ko sa sabaka yi toll na ne asamaan boo ma ñaanee ca rafet njort ci ñaan googe danaa la ko jéggal wax na boo wax na ne ne boo ko defoon ay bàkkaar yu tali suuf ba noppi dikk dajeeg suñu borom boo ko moom dara dara ki mbokkaale amook suñu borom neen dana la jox njëggal gu toll ne bàkkaar yooyu kon nag nañuy tuubaat suñu tuubaat suñu borom bu baax te bañ a def tuubi olof yi rek nag tuub naa tuub tuub tuub maal maq rek mu jeex dama war a tuub goo xam ne dangay dellu ci sa borom delluwaat ci jaamu yàlla tey tuubalante ci suñu diggante sa nag ndax li ñuy tooñante ci suñu diggante dafa bari non kon nañuy bàyyante àq bu baax a baax suñu diggante tey ñaan suñu borom itam mu génne ñu ci jafe-jafe yi ndax yaakaar naa fi ne loolu rek mooy ngànnaay li nu mën a génne ci xat-xat yi ñu nekk tuub balantu àq tey sàkk sarax loolu gaa yu baax yi daana ko dile waaye yaakaar naa waxtoom jot na ndax yàlla yàlla yonent bi wax na ne yàlla dafa bëgg ko koy ñaan nee nag li yas'ala ahadukum rabbahu nit ku nay la ñaan ñaan aajoom ba ba sa dàll wu dagg sax leen ñaan sa borom mu mu mu defaral la kon mooy bul fu xeeb dara ñu xam ne ñaan dal mooy ngànnaayu ab julit mooy kenoy diine amul lu gën a rëy ñaan ci julit te daa mel ne danoo bëgg fexe ba ñun ñaan wa julit yi fonkatuñ ko looy wut lu ne ñaana ci gën a wóor ci nga am loola boo looy dàq lu ne ñaan moo ci gën a wóor ci loola sori la waaye njàqare loo dekk itam bëgg ca jóge wala tiitaange ñaan moo ci gën a wóor waaye boo ñu ñoddi wërsëg ak barke itam ñaan moo ci gën a wóor waaye nag ñaan gi itam da ngay toroxlu bu wér bàyyee sa bopp yàlla bu wér sellal sa sa ñaan bu wér di def tawassul ci yàlla te gëm ne ñaan googe sunu borom dana dana ko nangu loolu mooy tax nga am ñaan gi gën bëgg te ñu jégalu suñu borom baax itam nag ndax booy jégalu itam yoon bi sàlla wax na ne ku taxoo ak njëgul sunu borom dana la njàqarloo nekk sunu borom dana la ci génne xat-xat boo nekk sunu borom dana la ci génne te dana la wërsëgal boo xam ne foogoo ko woon sax kon nan fonk yàlla wax na ne kuy kuy jéggulu fu ñu fu nit ñi nekk di jéggulu fa mbëru mbëgalum sunu borom du fa wàcc kon nag li fi dal ñàkk jégalu moom wax na wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana la muazibahum wa mustaxfiruuna fu ab yonte bi yonte bi nekk mbugal dafa wàcc waaye fu fu boo xam ne mbooloo nga fa nekk di jéggalu suñu borom ca sax ca moom itam mbugal dafa wàcc kon nag nan delluwaat suñu borom di jéggalu tey ñaan tey moytu mooy yàlla yu bari yi ko defee rek yàlla mën nanoo génne ci xat yi ñu nekk allah maxfir lana xati'ana wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta ahlum bihi minna allahumma maxfir lana xaslana wa jiddana wa xata'ana wa amdana وكل ذلك عندنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين